kenn du ko interdire mu def tournée kenn du ko interdire mu def tournée am mën naa def tournée am dem fu ko neex parce que d'ailleurs la preuve je nañ ko déjà ci la coalition pouvoir mu Benno Bokk Yaakaar euh, dégg nañ leen ñoom waa euh, pour moi ñu génn wax que ni euh, daanaka fulaaluñ leen ci biir coalition bi ñu nekk dégg nañu ñeneen ñoo xam ne aussi ñi ngi jug ñoom itam di réclamer seen seen wàll ci mbir yi ndax jàpp nañ ne dañ leen a beddi presque yéen lan moo motiver exactement ngeen taxaw wax que ni fulaaluñ leen ci biir la coalition benn bokk yaakaar alors que euh, am na benn post boo yore mooy un poste de euh, directeur. waaw non xam nga coalition boo ko waxee moi je chef de parti. oui am parti jiitee voilà dëgg moo am yeneen entité yoo xamante ni ay parti lañ yu nekk ci biir coalition bi ñooñu aussi nekk ay chef de parti même si je le coordonnateur. bu fekkente ni dañu woote daan ne dañuy def conférence des leaders tey ñëpp dañuy toog kenn ku nekk di nga wax sa xalaat par rapport ak compagnonnage bi ñu am ak benn Bokk Yaakaar n'est-ce pas. léegi ci biir loolu ci lañ toogee conférence des leaders nit ñi wax suñu xalaat ñu tëgg ko ci benn communiqué publier ko c'est tout simplement ça même bu fekkente ni man ak keneen ak keneen am nañ ay décret président de la république nommé ñu. mais entité globale bi nga xamante ni mooy la coalition républicaine bu ñu waxtaanee suñu biir ba tëgg communiqué c'est pas parce que Modou Fall rek nga fa mais ñenn ñi dañu am seen dañ dañu am démocratie interne aussi dañu am possibilité exprimer wu wax seen xalaat bu boobaa aussi dañ ko tëgg ci biir communiqué bi génne ko voilà li ñu wax mooy politiquement dañ ne ñun ci biir benn Bokk Yaakaar lañ nekk reconnaissance boobu am nañ ko parce que président de la République bind na benn lettre wax ko mm-hmm. bi mu amee normalement dañu war a am présence ci instance su Benno Bokk Yaakaar parce que coalition bi dafa am instance yu bari y a les jeunes y a les cadres y a les femmes y a et cetera et cetera mm-hmm. donc y a la conférence des leaders y la conférence de leaders restreinte et cetera donc place bi nga xamante ne nii peut-être war nañ ko occuper ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar dañ ne buñ sañoon danañ ko occuper donc ñu demander à ce que ñu gën ñoo considérer en tant que sous coalition de la coalition Benno Bokk Yaakaar muy benn deuxièmement aussi ñu gis ne élection yi passé élection législative oui. donc mëne nañ ci benn combat boo xamante ne nii les vidéos sont là donc ñëpp gis nañ ko ñu engagé wuti ci élection législative yi parce que doon nañ sorale éventuellement cohabitation par exemple man Diourbel laa dëkk am na peut-être benn engagement boo xamante ni bu amoon ci yenn dëkk yi nga xamante ni intervenir nañ fa doon nañ plus value par rapport ak score bi ñu fa am mënoon naa gën a ñaaw loolu la ñu wax kon ñu ni euh, dès lors que contribuer nañ ci euh, victoire u Benno Bokk Yaakaar même si la victoire dafa ñoo jox benn majorité relative tey position boobu ak les faits mooy vidéo yi ak rencontre politique yi ñu def donc war na tax ñu gën ñoo considérer ci biir benn bokk yaa boo gisee ñu wax loolu mais est-ce que tey kenn dëggati na benn coalition benn sous-coalition à l'intérieur de Benno Bokk Yaakaar buy def ay activités politiques non est kenn dëggati na Benno Siggil Sénégal di def ay activités non est que kenn dëggati na Benno Ak Tanor di def ay activités. mais vous ne pesez pas lourd. voilà mais on pèse xam nga tey est-ce que xamoon nañ ne réellement Benno Siggil Sénégal lu muy hmm. kenn mënu la ko wax. kenn mënu la wax Benno ak Tanor lu muy posé parce que entre temps lu bari xew na fi te je suis à peu près sûr que coalition yu bari tey buñ demoon ak ñoom mën nañ leen a gagné parce que coalition jeune la te ñi nekk ci ñun kenn ku ci nekk localité ba mu dëkk am na lu mu fay représenté pour gagner ci fan ngeen koy ngeen ngeen koy teg. non bu dee à Diourbel gis nañ la nga xam ne moo faaw am bañ na ko ba sax investir uñu la woon non euh, ne Ibrahima par exemple dans la ko woon euh, Djibril Ndiaye la Médina gis nañ aussi euh, nam fa demee woon cela veut dire que ni du du question que ni doole ji ngeen war a am dëgg am non j'ai pas dit ça pour ñu leen a jox xam nga entité bi permettre nga mesurer mhm. li may wax élection la moo tax moo def condition naa ni tey bu ñu demoon ci par rapport ak ñun jeunesse bi am ci ñun ak engagement bi nekk ci ñun en terme de en terme de mobilisation en terme de massification man naa bañ a nekk actuellement ci yeneen coalition yi foofu laay wax ak yow maintenant ñun ay jeunes leaders lañ peut-être fii Moustapha président Moustapha Niass àgg en terme de légitimité en terme de àgguñu fa. fii euh, Aminata Mbengue Ndiaye àgg àgguñu fa. fii président Idriss sec àgg àgguñu fa. mais tout de même ay jeunes lañ ñoo xamante ne tey tout le monde apprécie boo defoon sondage que suñ coalition vraiment am na lu muy représenté au niveau du Sénégal. et c'est ça c'est comme comme comme que joxuñu leen ci li ngeen li ngeen soxla woon. dëgg mais mënuñu bàyyi mais mënuñu bàyyi parce que du poste moo ñu intéressé. du aussi positionnement par rapport ak dara moo tax ñu intéressé moi je suis le directeur de l'emploi xam nga quoi qu'il puisse arriver je de soutenir le président de la République parce que moom laa jàppale. ci coalition bi aussi bi ñu ko tëgg. dañ wax lu leer dañ ñu ñun dañuy défendre le président de la république fexe ba vulgariser ay réalisations ñu def un peu partout. à vous êtes obligé de vous êtes obligé soutenir le président de la république est-ce que obligation day dem ba soutenir ko pour un troisième mandat. oui oui bien sûr. oui oui non non on tourne même pas même bu ñu dem bay tripatouiller li nga xam ne daal constitution. amul ah, ah, xam nga xam nga constitution. jàngatu tripatouiller ci mémoire kii wax la nekk. parce que au Sénégal nul ne peut plus de deux mandats nga toog en tant que citoyen nekk yaa wax léegi ni jeune nga nga bëgg a euh, jàppale parce que da nga jàpp ne jàppale président de la République c'est une obligation ba li nga xamante ne sa constitution da koo tere yow da koy dëggal pour un mandat. sa xalaat nga wax ni constitution da koo tere mais tey. bu ñu demoon ba conseil constitutionnel tey bu ñu. c'est écrit noir sur blanc moo tax la. dama ni tey bu ñu demoon ba conseil constitutionnel daani non président de la république amul droit def troisième mandat bu boobaa à ce moment on sera obligé de sa conformer parce que état de droit kuréel gi war a wax wax na te li wax leer na nañ dañoo ko ah kon kat kilifa gi c'est fini donc ñii ñu fi teg pour liir loolu liire nañ ko noonu voilà mais du waxu ma sàmba wala ma demba wala kumba mooy tax ñun gis-gis bi ñu am ci loolu mën a changer c'est-à-dire est-ce que ci monde bi am na ñoo xamante ni nii dañu dañ ni diw def na deux mandats benn bi cinq la ak benn bi sept ans la est-ce que masa am ci monde bi bu amee peut-être mën nañ ma ko wax ci ban réew lañ gis ci monde bi deux mandats yoo xamante ni nii ah deux mandats yoo xamante ni seen ay dure les deux durées sont différentes amul ça n'existe pas te tey boo liiree constitution bi boo liiree constitution bi moo la laajoon ni la lan mooy durée mandat wu constitution bi je ne vais pas entrer dans des détails yoo xamante ni nii kenn ku ne am nga sa position juriste yi jëm nii ñi jëm na le mais not constitution actuelle li mu wax mooy le mandat est de cinq ans d' accord nga man le mandat est mandat de cinq ans oui d' accord nga président de la république kon mi ngi doog a def mandat boo xamante ni mandat wu cinq ans la. mandat sept ans bi la la woon. non non non de de ma. damay damay waaw d' accord na ñun ñëpp ni le mandat est mandat euh, le mandat de cinq ans d' accord président de la république mi ngi nekk di def premier mandat de cinq ans est ce que bu paree premier mandat de cinq ans amul droit moom su soxlaa moom bu soxlaa daal ni. soxla naa beneen deuxième mandat de cinq ans conformément à la constitution actuelle. d'accord loolu non non non il faut ma laaj Pape Ndiaye. sur le plan comme da évoqué justice dinaa <laughs> Pape Ndiaye alors lecture bu mu ko def c'est très simple dafa ne euh, gisuñu ci benn réew ngoo xamante da nga def deux mandats euh, successifs yoo xam ne duñu bokk euh, durée président de la République defoon na premier sept ans mu def li nga xam ne mooy deuxième cinq ans est que mun nañu wax ne que ñoom bu fekkee dama topp raisonnement bi. Mhm. xel mun naa jàpp ne mi ngi ci premier mandat. non man kañ benn nattukaay laa lay jox. maanaam loi kenn mënu ko wax loolu mu wax loowul bu doon loi moo wax ni il faut que ñaari durée yi tolloo ñu mën a comprendre mais loi waxul loolu muy benn deuxièmement gis nga lu jëm ci wàllum euh, troisième candidature moom comme ni nga ko waxee rek du ma dugg ci juridisme ay mm-hmm. loi wax na loolu moom dañ koy bàyyi ak juriste yi mais mm-hmm. li ma waxoon fii bii passé lay répété dama ne Sénégal la parole du président de la République a une valeur constitutionnelle. Mhm. Sénégalais yi écrasante majorité sénégalais duñu juriste. Mhm. xamuñu lu loi bind xamuñu lu constitution bind ñoom daal kàddu njiitu réew mi la ñuy jàpp moo taxawoon wax ni ñaari ci lay yem sénégalais loolu lañ jàpp. parce que la jurisprudence Abdoulaye Wade mi ngi fi. ce qui mhm. s'est passé en moom il faut ñu gàtt xel pour mën bañ ko fàtte. qu'est-ce qui s'est passé ñun ñun gis nañ ko Abdoulaye Wade Abdoulaye bi mu nga xamante ni moom la jeexal ak ba mu fi fekkoon xam nga uute woon. am na différence waaw. te pourtant ba mu demee conseil constitutionnel conseil constitutionnel va bien que validel nañ ko mais xam nga le jugement du. bien que validel nañ la ko c'est important li nga wax noonu. non wa bien que validel nañ ko. Ah non mais yéen kon on conseil constitutionnel lu Sénégal yaa ma gën a xam. <laughs> mais comme bien que validel nañ ko li ngeen xeex dire que le président de la République à 99 virgule 99 pour cent. les 5 9 da ko koy validé kan mooy fal kan mooy fal conseil constitutionnel. ah waaw mais président bi moo leen. ah jeex na mais mais moom Pape Modou Fall sax dafa def benn volte face parce que yow euh, yàggu fii yàggu yooyu ba la bañ la doon invité fii Walfadjri ngay dal xel ci le chef de l'État ci sa gestion et je me rappelle ki nga xam ne ma Georges Ndeye Sadar la invité nga doon euh, vraiment euh, di di tenir ay propos yoo xam ne dañoo gis ne bañ la nommé directeur de l'emploi dafa mel ni beneen Pape Modou Fall lañu gis qu'est-ce qui s'est entre temps. j'ai pas changé. sa discours toujours day am ci élément bu muy tenir ci lan la waxtaane ba discours bi tenir ci loolu par exemple tey boo ma waxoon ni ma Euh, boo ma posé question ni euh, euh, madame Aminata Touré est-ce que dañ ko war a dàq assemblée nationale wala dara man gëm naa ni dañ ko faa war a bàyyi moo tax ma ni position bi toujours day dépendre ci li ñuy ci discours bi ngay tenir day dépendre ci de quoi il s'agit ci loolu lay dépendre. parce que tey am na position yu bari yoo xamante ni ñun Benno Bokk Yaakaar jël nañ ko mais ànduma ci. c'est la même personne bi fi le chef de l' état Macky Sall bi nga doon chargé. bi nga doon invité fi émission bi. waaw c' est le même euh, c' est le même chef de l' bi nga défendre tey le chef de l' état c' est une moom laa lay expliquer. donc nga bàyyi ma répondre la. le président Macky Sall. d' avant 2019 ak le président Macky de xam nga lan mooy changé mooy entre temps li mu liggéey ci réew mi entre temps li mu def ci réew mi ba sénégalais yi teg ci seen bët loolu moo changé mu expliquer la. d'abord boo jëlee ci euh, formation enseignement supérieur. dinañ si ñëw sax. voilà moo nekk moo le troisième. waaw moo tax ma xam ne boo jëlee ci côté boobu li ci nekk ci ay réalisation kenn xamul. Pape mhm. en terme de mobilité. Mhm. non damay répondre ci question parce que il faut ma expliquer ko la ci changé. Mhm. tey boo xoolee en terme de mobilité li ci am avec le TER avec le bus rapide de transit. et cetera les autoroutes yooyu yëpp kenn ku ne xam na ni. nit xalaatul woon def yenn déplacement yi ci yenn distance yi te aujourd'hui c'est possible mm-hmm. la dernière fois j'ai rencontré quelqu'un à Bargny mu ni moom léegi Dakar terre bi rek lay jël parce que Bargny dakaar vingt cinq minutes la koy def mais imaginez changement boobu ak yeneen changement sur le plan de la mm-hmm. formation professionnelle de l'emploi des jeunes et cetera et cetera yooyu yëpp dinañ ci ñëw moo tax tey ñëpp mm-hmm. d'accord ni njiitu mi def na résultat d'ailleurs la preuve madame Aminata Touré mi génn moom nee na président mën nga ko waxal lu nekk ba mu des deful résultat. et papa dit le contraire elle est comptable de votre gestion. dafa am ay décisions yoo xam ne aussi dafa koo xamante ne nii euh, weddi gis bokku ci. oui dafa am ay décisions yoo xam déjà jël nañ ko ci la coalition Benno Bokk Yaakaar te d'accord ci euh, lu ci mel ni madame Aminata Touré par exemple parce que nit ñi.